pour ñu wàññi ñii dugg kaso ñu bañ am musibaay kaso parce que li nga ko tudd moo tax sama xel ci gis nga resul xaru tabaski waaw képp koo xam ne bañ ngaa dugg kaso parce que xam nga kaso moom nattu yàlla la yàlla na ci yàlla musal te musal ci ñëpp ku ñuy déglu waxtaan ni boo ko jëlee ci bisu xaru tabaski bi te bañ koo laal suuf ba tey foofu bu génnee ci xar mi rek waaw res wi res wi laa wax bu génné fan ko daggé rek téel ñu bind ci baatu mudd xaamataani kase ma ngi ci suutu rahman buñ ko bindé lakk ko waaw dañ koy lak sé loxon koy bindé wala bindu ko bind ko bindal jël big big bu mu doon baax na na ci bindu rek waaw na ci bindu rek ba nga gis ma Lakal, ba mu ñor ku ca lek di nga ko ci kaso hmm? waaw ah muddu hamatani, mudd xaamataani mudd xaamataani hmm. ma ngi ci rahman hmm. am solo waaw. sëñ Malick daal yii may saan nag baatu mu amataan ni na ngeen ko préparé bañ ma cee sonal. na ngeen ko laajte avant ki di ñëw ndax bu tabaski bu jotee damay fay sama taw ndax loolu mënu nekk. su ko defee boo ko bindee ci res yi ba mu leer. nga lakk ba mu ñor njaboot gi ku ci lekk yàlla dina la musal ci ay kaso. waaw loolu lan moo ko gën. kon commissaire moo fàttali moo ñu fàttali loolu ndax bu sama xel demutoon ci commissaire. wàññi élément waaw foofu ndax ñu wàññil coono yi. da nga tax commissaire dootu am. def commissaire. nee ko foofu participation bi mu noonu <laughs> boobu baax na ci moom. <laughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaw ndax ñëwee ci làmmiñ wi. Mm-hmm. làmmiñ wi. Mm-hmm. maanaam day faj ñàkk xorom. Hmm? waaw ni ko amul xorom. làmb ñu xarum tabaski ngay a. bind Abasa. Abasa waaw. gis nga boo ko bindee. Mm-hmm. daa koy euh, manam safara ngay togge lamini bo boole ci tuuti xorom bu ñoré nak nga nan ñam way bu lek lamini nii de waaw bis bo lek ni làmmi ab waxal nga doon da nga nan ñam mi rek waaw nga <laughs> waxal nga doon ku bari wax nga doon <laughs> da nga wax bu nit ñi jaaxle ay yow da nga nan ñam rek daal bayyi laa <laughs> mi nag boo nappee mën nga ko suul wala nga seet foofu waaye bu ko lekk de ëpp naa lekk nag hmm. waaw loolu sekkar la ci xarum tabaski ndax ba tey itam uh-huh. bu lekk làmminu xarum tabaski mu muuma hmm? waaw baal bu bu moo tax moo tax mbir yi uh-huh. il faut ngeen taxaw ab seetlu yàlla am na lu tax hmm. kon loolu bàyyi nañ ko xel waxuñu mu muuma de bis bu muumaa boo ko lekkee da nga am problème kon yooyu ay sew sew la gis nga euh, euh, ni koy waxeeti góor gorsu bi lii lu ko tubaab tuddee bëli bëli waaw tu olof bëli la ah. mais lii lu ko tubaab tuddee am na nu ko tuddee tam tam doon ab raccord rek léegi nag du li may xam nañ ko waaye li nekk waa kay waaw loolu loolu nag njëriñam lan la hmm. bëli xar bëli xar waaw kon ëpp naa sànni hmm. ñu bari daan nañ gis ñu ko daan samp ci bant hmm. fàtte ko ba mu woow ñu denc hmm. kon jeex na loolu ana lu muy faj mooy ansim lay faj gis nga ansim fu mu fekk ansim léegi nag jigéen ñi moom mënoo leen aw sagar loolu loolu dañ koy rus waaye bu la neexee loolee nga nga jël ndox jaarale ci kaas bi rek ndox mi wàcc nga naan ko xam-xam a garaaw. waaw waaw daa làq jëlal satala rek. jël sab kaas jël raaw ko bi jaarale satala gi. ci biir ci biir ndox mi. jeex na mu wàcc ci kaas bi mu naan. jeex na. Hmm? loolu moo gaaw ci enzyme. te enzyme ñaata nit na ma yàlla jégal lay faat. kon loolu ku am. boo ko boo ko weeree ba mu wow dencal. matériel bu garaaw a ngi noonu. da ngay gis jigéen joo xam ne day dem xew ba yàgg mu dëppaat ci xew wa ngir lan enzyme. gis góor goo xam ne doon fayaasi far mu mujj ko bàyyi. Hmm. ngir lan ngir enjeu yaa ngi dégg. cosaan lii moo koy saafara. Hmm. te lii ma lay wax nag booy laal rek mu lay mu muy laal. Hmm. buli xar buli xar. waaw. kon ëpp naa sànni. te gis nga lii ma lay wax yëpp dañ ko dañ ko njëkkandi ko sànni ko moom. jàpp yàpp yi di lakk di lekk rek. ba ñëwee ci ba tey ah, paaka bi nga xam ne moom moo rendi xar mi. xam nga bari na ñoo xamante bi dañoo am problème mu xel. seen xel lu ñu jàpp. lu ñu jàpp. li ñuy wax kiis yaa ngi ko mën a amee ci tabaski dëgg nag. waaw kiis kiis mooy dégg jàpp xam mokkal te doo fàtte loolu kiis. léegi. boo jëlee xar mi ñu rendi ko boo nappee jëlee sa paak bi rek fomp ba mu set. nga bind ci iqara bismi turu daal di def aaroona. iqara bismi daal di def aaroona ka nga bëgg ka nga bëgg xelam neex ngay def bu dee aaroon nga def aaroona bu dee euh, nangam sàmm nga def nangam sàmm bu dee nangam na voilà koo ci bëgg rek waaw waaye foo fee nga yem ci iqra bismi rek la ci des mooy àggale tur wa boo ne iqra bismi mhm. nga bind turu nangam paaka ba mhm. moom ngay jël jël fourne def ci këriñ boyal ko ba mu boy nga teg ci paaka ba ba mu xonq mhm. nga xar mi ndox ma mu mujjee naan ci bisu tabaski ba fekk nga tàng ci am nga ci ab verre nga samp ci paaka ba mu ne ces ba fay mu naan ko ñetti góox xara xale bu tëë mokkal mag mu xel mu naqari loo ko mu fàtte ko lu mu reeree du ko xam bu koy naan di xam léegi loolu kenn rek lay concerné wala. waaw waaw kenn lay concerné waaw. benn paak boobee benn dëgg la. rek nga ci mën a dem ba expliqué. waaw noonu la waaw. mënut tëjalaat keneen. nit mënta am ñaari xel. Ah, lu am solo nga laaj kay moom kay noonu la. précisé boobu nga def lu baax a ngi noonu. kon iqara la bismi foofu nga yem. bind tur ki nga xam ne xelam da bëgg xelam neex. waaye bàyyil xel ne xar mi. xam nga bisu tabaski bi yoon la bala nga ren sam xar bala nga ren sam xar ma ngi daana jël am ndox timé nako ko xar mi mu naan ba siggi waaw bokku na ki diine waye mag ñaa ko indi won nga dañu bañ mu deyaale mar ak ok beneen bi stop moy xar mi fim doon weqoo lu garaaw lañu noonu nag waaw bi ko rendé wequ wequ bobu mu def xam nga xar sa boo rendé ñaare dana saw waaw bu sawee da nga gis ne tànk yi er, maanaam mettitu dee gi rasu boobu muy def nga xam day fequ suuf si di dayu fële suuf soosu boo ko tubbee njaay mu bëgg jar njaay moo bëgg mu jar lu am solo ngi noonu lépp loo xam ne tën naa jar boo ko ci xëppee rek dina jar hmm? waaw boo ko rendee mhm. yokk boobu muy yokk di fuug suuf si mhm. xam nga day rasu tubbal boo seetee njaay mi ñu ah njaay mi daal lamb wis ko ca rek sa xarum tabaski wala mépp xarum tabaski moo fekkee moo fekkee baax na mhm. <laughs> gis nga ni grawee am na beneen composant bu ci nekkaat waaye boobu rek li ci des moom am na livre boo xam ne ma nga ca waaye bii moom nañ ko maye ndax moo gën a yomb a jàpp ndax damay bañ duggaat ci beneen détail bi ñu la koy laaj laaj boo xamante bi doo ko mën a leeral waaye bu ñu rendee xar mi rek rasu boobu muy rasu di yokku rek tubbal suuf soosé amul looy tari tubbal rek lay la nga bëgg mu jar rek wis ko ca jëw leen wis lu bari mën ngaa comp rek def ca am na leneen lu ngeen ma laaju te daaw den ma ci sonal mm-hmm. mooy waaye yàllaay xar mi lu am solo la ci ci ci ci kilifa. am na tur waaye yow après yow yaay yow nga ko. waaye man foofu laa mën a mbokk yi déglu loolu mooy xuuri xar noonu la tudd. waaw li am ah, tudd ci wolof waaw. waaw kon yaa xam gis nga loolu. Mhm. góor gu ko jëfandikoo doo tële. Hmm. doo tële hmm. yoom. Hmm. diw gi dana ko eh, takk xala. nangam. doo ko dégg waaye bu mu doon bu mu bu mu doon tam bu yoom. daaw nag am na ñu ko jël. Hmm. woonal ma sant na ma. Hmm. waaw. léegi moom ci xaru yu ci xaru. xaru li de yaa ngi may fàttu suñu Fallou ndeysaan. waaw. nee nee na nee na nee na nee na waxtaan. ngir ñu jëriñu. Hmm. ñu lay jox lekk nga koy làq loolu jëru ko. Eh, eh, li ñuy def ayut. kaa leen kaa leen naan kafe. bisimilah kaa leen naan kafe kaa gis nga waaye yàlla yooyu waaye nak defin bi mo moo xoromu ñu koy defé ñu koy defé mo xormo ndax barna ño xam dañu dañoo lool ñu koy defee waaye sekkare secret la tuddu waaw man nima ko xamé rek la ko waxtané waye boko fa nekké di fess suru ba day daa dem karaw gi yépp mom ngay baxalaale ci un litre ndox ak xorom hmm? waaw baxal ko bam bam four nga nan ci kaas bu mag li dess nga sul ko jeex na amatu leneen waye nak xalé du ko nan ku majeur a koy naan ku am soxna. borom kër daal borom kër ku amul soxna boo ko naanee nag da nga takki soxna. Hmm? force force da nga uti soxna. baa boog di nga def lu kenn bëggut. ah am ñaari yi ngay boole bax loola. ñaar yi ngay boole baxal. Hmm. Massamba léegi laa question rek. léegi nag am na ku naan man ndax danga koy raxas ak yéeg ma ne ko ah man nag da jàngi ko noonu ci téere ba. téere bi daal dañ ne. Hmm. boo ne ko tapit fam fam saxee. fekk ut nga sa litre ndox baxalal dugalal sóobal baxalal def ci xorom bu baxee ba fuur nga xent ba am ci kaas nga naan benn yoon tam la si koy naan ci lu muy day tax awra bi day dëgër day dëgër <laughs> day tax doo doo doo yoom day tax kenn du la mën a yàqal maanaam sa awra woowu takk xalaat lépp a ci yam